ginnaaw bañ sant yàlla jël seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njabootam yëpp waaw di sant sama papa bu baax ak sama yaay sama mag yi su mel ne ñoom Aliou Ndiaye Ismaïla Papi ñëpp di bëggee tamit waa du Balla Gaye bu baax a baax sama xarit yi nekk fii di leen nuyu tamit waa presse bi yéen ñëpp ah. 200 pour cent bu parcelle mhm. génn ci seen sortie bu njëkk am ndam ndam lu rëy. ñu duggaat ci géejawaay am Fils de Balla Gora nee na fi ñu jaarale woon say morom rek laa lay jaaral. waaw dañuy leen bëgg xamal ne Pikine du géejawaay. ñun géejawaay lañ dëkk te ñoom xam nañu bu baax. lu tax nga ne Pikine du géejawaay. duñ benn xam nañ xamante nañ rek. lu ngeen xamante. non parcelle xam nañu ñu. nuñ leen xamee. xam nañu bu baax te lu 14 dinaa ne Gora Sock yebu ma. ci ñee ma yeb rek. ci la ñu la xamee. dinañ dañ ko bàyyi bés bés ba rek. bëri naa mbëru parcelle. ñaata benn yoon au niveau laa fa bëre. def ko na daan ko. duggaat ci góor a waaw dootoo fa duggaat nee na. pare may duggaat su ma paree fa laa jëmaat su ma paree si ñoom laa jëmaat. da nga ñeme góor a soog trop saa yu ngeen jàkkaarloo nga ne ko tàppet nga amoo fi lan moo tax nga ñeme. non du question la ñeme maa wul sama bopp rek nekk xale loolu rek góor a soog du moom mooy téye ci làmb mënu ko sax hmm. mënu maa téye ci làmb sax. Fils de Balla ñu ngi lay nuyu di la ziar. di uh-huh. la jox sa wàccuwaay tey gis nañu combat bi njëkkoon na yàqu. Uh-huh. tey suñu defaat la kala suuf uh-huh. koy bëri. mais dama gis tey da nga da nga ñeme sa gan trop. dañ laa dee wala da koo xam wala lan moo xew ba tax jamono juñ toll nii nga ñeme ko lool. non oh, kenn mosuma dee man ku bëri nii laa mel man ñëpp ñu ma a bëri nii laa mel damay wax jaay làmb ji ndax dañoo fay promoteur dañoo fay fay ñu rek pour ñu noppi ñu jaay làmb ji jaay bés bi bëgg nañ ñoom soq def làmb ji ñu def noonu ñu ko raw làmb ji moo tax ñuy wax rek mais du dara. mais tey jii gis na la def physique bu tar. Uh-huh. lamb ji ko laaj wala da bëgg am leen loo wane. non dégg nga lamb ji ko laaj rek lamb ji mu laaj dañ koy def bàyyi ñu benn côté lépp lu mu wa lépp lu mu laaj dañ koy def waaw uh-huh. pare nañ ci côté ba. waa bi lépp maa koy def góor soo la laa ko wax mu taxaw rek maay def lépp. maa féete xale. maa ñëw bëri si moom na taxaw rek. Ah na bañ dafay déplacement rek loolu laa koy sant. moom nee na daf laa mere parce que day bëri mbër moo xamante ne yarul kaddu bu nekk la koy wax te kaddu boobu day génn ci lamb. waaw léegi lamb ji na ma yar góor soog bu lamb jee nga yar ma. nee na bu albiné prix ma yar bu lamb ja amul ma yar di lamb ja rek. maa lay fay. mu ne la mu ne mën mu ne doole moo la dàq mhm. ay secondes est-ce que tey bu la mayee deux secondes ci lay bëre ci lay loolu mënul nga naan ay sept secondes ay deux secondes loolu amul ne man duma xale nag ci làmb man su ma taxoo rek ba dëgër rek arbitre war a génn rek sept secondes yi jeex na góor soog loolu day nax ay supporter rek mais man kenn du ma appelé seconde te mbër mosuma appelé seconde. man sama moromu góor du ma jàppal seconde sama moromu góor du ma manipuler si làmb amul. macha allah da nga ko doon góor soog du question kii la quoi question. ñu mhm. gis ne góor soog nee na yow ñi ngay bëre ñi nga doon bëre ak moom xaajul sax day nekk benn est ce que bu fekkee ci côté góor yi macha allah ak ci bëre yu bari dañ naan yow sa bëre dafa def zong la nga mën est ce que jour boobu noonu pare nga pour bëre ak moom ba naaw. Euh, zong la ki laa koy daane si làmb. général nan laa ko daane. Tafaleer nan laa ko daane. Balla Gaye Junior nan laa ko daane. Woosu Jàmbaar nan laa ko daane. Mbay Guy gi nan laa ko daane. moom na jàpp loolu rek. nee na fàttali na sa <laughs> lañ ne. kele boo indi ñu teg beneen ñu boo fàtt ñu tegaat beneen. nee na moom na parcelle. façon a bëree. góor moom mënuma résister. bu dëgg neexee rek mënuma résister. damay dégg gën a féete xel ma am doole. damay dégg te bu làmb jaay naa ko wane. dama bëgg nga xam nooy def say supporters ñu ngi lay xaar bu Diop non lamb ji lu mu laaj rek lamb ji lu mu laaj rek dama koy def yàqam duuma si dara yàqam duuma si dara mais tey jii ñu gis lamb ji ñëwagul mi ngi taw taw bi waaw ah, li xewal la rek li suñu suñu baax la rek suñ bu baax la rek waaw ndox xewal la xewal la lan ngay wax Gora Sock mu ngi jàkkaarloo gi moo yow parcelle gépp dañoo fas yéene jug mobiliser wu ànd ak moom dooleel ko ngir mu am ndam sa kaw mu ngi jàkkaarloo góor Sock li ma koy ñaanal jàmm laa koy ñaanal jàmm laa lay ñaanal Gora Sock ba bés ba nga ñëw ma jàpp la daan la maa la gën a féete xale maa gën a soxla làmb ji lépp góor lu mu indi fekk ko fi maa gën a féete xale maa a soxla làmb na ma bàyyi ma dem rek. mais côté côté mobilisation bi tey foo si toll. ñu ngi siy waaj bu baax nag ñu ngi siy woo ñëpp autorité géejuwaay yi ñu ngi leen woo ñëpp ku si mel ne Lat Diop Lat Diop maa lay woo bu baax ci làmb ji nga jënd ñu biir yëpp bëgg nañ ay vingt bloc lañ bëgg a jënd lépp lañ bëgg a jënd sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy woo Masata Baye Khalil ñoom Sora Bado ñoom ñëpp maa ngi leen woo nee na Tall waaw maa ngi woo Momu Ndiaye Momu Ndiaye maa ngi koy woo ci làmb ji bu baax. Pii le milliardaire maa ngi koy woo ci làmb ji ñaari bolok laa la sas làmb ji Landing ñaari bolok laa la sas Xarim Diagne bu Pikine maa ngi lay woo ci làmb ji di woo ñëpp waaw bàyyi ma di woo tamit sama patron tamit. Kañ production maa ngi woo bu baax ak Tafa Kañ ak Bamba Kañ ak ñoom laat ñoom ñëpp maa leen woo bu baax ci làmb mhm. la 14 yow sa doomu day da ngeen di bëri. muy ah. Balla ak yow le 7 août Balla mooy bëre. Mhm. te tos yaay bëre. Mhm. pression boobu tey nan ngeen koy dundee. non ñu ngi waaj max Balla ngay tëdd moo ñuy tàqali tëdd ñooy àndandoo def lépp ñooy kondaanandoo lépp ñoo koy def tëdd moo ñuy tàqale maa ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla may ko ndam yàlla may ko ndam le 7 le 14 mu ñëw yóbbu ma làmb ja ma doggali waa ji loolu laa koy ñaanal. oui waaw ah, boo xoolee parcelle Guédiawaye dër bi la. Mhm. chaque jour dafa am lu mu demee. Mhm. te tey jii am léegi ji da nga dafa am saa yu duggoon. Mhm. yow nga am foo ah. ah. waa parcelle. waa leen ñaanal jàmm rek ñu leen di ñaanal jàmm rek. wax nag fekk fekkee am na lu ma waxoon jot a wax leen métti maa si jégalu bu baax maa leen di bu baax làmb rek mais du nekkul question Gora Sock ma bëgg a wax yóbbu wax ji fu mu ndax dañu doon wax pour cadre làmb jaay làmb ji waaw mais maa ngi jégul waa parcelle bu baax ndax parcelle am naa fay xarit am naa fay mbokk am naa fay dëkkandoo nu moom ëppale wu ma parcelle sama raxu papa parcelle la dëkk foofu déggoo lu ma la wax Gora Sock kon bi mu dëkk Cambérène la am naa fay xarit moom mënu maa jaxase àdduna mais maa ngi bu baax lu ma jotoon wax maa ngi leen di parcelle bu baax mais làmb ji man moom la moom amul lu ma koy jégalu nag moom waa parcelle am ñoo jóg mais max moom ci biir géew ba amul lu ma koy jégalu si lamb jégalu ma non moom jégalu ma ko dara góor soog amul lu ma koy wax lu ko neex fii ba lamb ji lu ko metti laa koy wax chaque jour lu ko metti laa ko du ma ko raayal ndigam du ko ne lu metti rek laa koy wax waaw waaw non ñoom si ñeneen ñu ngir Balla Gaye lañ ne ñun igir Balla Gaye lañ ne ah waaw loolu loolu loolu ñoom ñoom loolu la con ñoom la concerné man kenn du ma daan ci seconde man fan nga yow xanaa xamul nag man tamit man man mbër nee naa du ma jàpp appal li may daan amul mbër du ma jàppal man maa appal maanaam la fii nga ma yem te fii laa lay daan amul leen lu may waay di jàppal ci làmb waaw du règlement de compte moo fu ñu dajee lu yomb góor soog fii ba la quinze lay am jàmm la quinze la quinze fii ba làmb ju doom jàmm fu ñu dajee day métti pour mu xam ko pour mu teel ko sóoraale muy signature rek muy lépp fu ñu daje du yomb. waaw làmb ji moom le quatre la quinze lay am jàmm bu làmb ji jeexee. mais looy tàggoo parce mi ngi taw te matériel yi waaw damay woote ñëpp di woo waa Géejawaay bu baax a baax di woo ñëpp di woo tamit waa Tëngéej sama dëkku papa sama dëkk yaay maa leen woo bu baax waa Tëngéej ñëpp ñëpp.